ñoo ñuy seetaan à travers les internautes ah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu axlu lamb di nuyu amateuru làmb yi ndax dafa am combat boo xamante ni combat amateur la am combat boo xamante ni combat jànk la xale bi nekk sama càmmoñ bi fi jógee ak léegi yàggul ci digganteem ak Jokkel mu ñëw bëri fi bëri bu li gën a doy ci combat boobu keroog Ada Fass li ko topp ci mbooloo Ada Fass moom moo toll noonu saa buy bëri wala mu bari moo koy topp ba pare saa bu bu ñëwee day bëri ak jom ak fulla ak fayda troit combats yi mu tegle yëpp ginnaaw bi mu jógee ci Onde le Fou yëpp dafa ñëw avec la manière mu mel ni digganteem ak Onde le Fou daf ko jàngal lu bari ci digganteem ak Bébé Bismi mu jël mu mu daan ko jël bu rëy ñëw digganteem ak Jokkeel daan ko jël bu rëy ñëw digganteem ak Tafa Mbër daan ko jël bu rëy kon tey ndaanaan dëgg dëgg dëgg lañ taxawal combat digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Coly Faye numéro 2. Coly Faye tamit c'est un grand champion moom bi mu mujjee stadium Iba Mar Diop naan di Fall la fa dajeel daf fa ñàkk mais bi mu ñëwee fii ci arène nationale ñu jox ko général bu Faas keroog daf fi wane boppam. keroog bëri bëri bu rëy nekk koo xamante ni champion la moom tamit takkusaan bu ne bëri na ko moom Coly Faye numéro 2. combat yu yu nii espoir yi dafa am solo dañ ko soxla ci promoteur yi ndax boo xoolee tey jii combat bi nga xamante ni LP lañ ci àndal ñoom ñoo ñu ci woo ci combat bi dafa ñu indil combat boo xamante ni combat jànk la amateur yi dañ ko soxla Coly Faye numéro 2 keroog bi ñu ko booleeg général bu faas ñu bëri général bu faas lañ jox favori bi mais bi mu ñëwee dafa wane boppam xam ni man dama judd ci banlieue dama judd ci làmb damaa jàng bëri dama ko tarbiyu keroog bëri bëri bu métti bien vrai que ni nag ci saa si ñu ngi joxoon à général bu faas euh, victoire bi mais keroog bi mu defee recours dañ ko delloo victoire am ndax la mu njàmbaar ga mu wane woon kon mbokk combat boobu lañ leen di présenter réew mi yéen amateurs yi ñaari xale yaa ngi nii taxaw Ada Fass ma ci Ada wala ma dem ci Coly Faye numéro 2 Coly Faye numéro 2 mais moom dafa moom dafa taxaw ak Ada Fass xaw ma lan la dafa ñàngal xaw ma Ada Fass da napp ci dugg si bi xaw ma dafa la ci dugg si bi dafa am lu mu la wax. bisimilah bisimilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf ma sant yàlla jërëjëf Ndiou Sow ñaar maa ngi yi jàmm gan ci Kaap Lamsar Kër Mbaye Fall Kër Massar Petit Mbao Grand Mbao Zeng Mbao Tëngéej maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi woo fukki njëriñ ñaari ci làmb yi di wax waa Thiaré maa ngi wax làmb yi seen làmb la làmb waa Thiaré la. da nga a woote waxal ak ba pare. ba pare xam bëgg. booy bi dafa la napp ci dugg ci bi wala. pour aujourd'hui waaw boo taxaw di di rapporter làmb comme nii. waaw di nga limalee booy bi ñu mu daan. waaw di nga limalee man ñu daan comme noonu. ah mais loo bëgg a foofu. pourtant pourtant ñëw naa ceew de déglu li ma la wax Ah? bëri ma général Fass pare kese. waaw waaw ah, pour ANCAR quoi. yaa fi taa pourtant at du temps yaa bëri nga ak moom bëri nga ak Maguette Seck. ma loolu weesu ñun ñëpp ah waxee ko fa. waaw mais loolu noo ko gisee. sëñ Fall waaw amul problème léegi nañ dem ci sa diggante à à à Fass. waaw yàlla yàlla suñu borom may dem bis bi rek lamb ji taxaw na ba pare. instant yii mënoo dafay wax bu safee. doo lamb wax. lan la booy bi lan la dafa am lu mu la dee ci buntu bi. lamb ji wax. lu tax du lamb wax. noonu la demee. ah grand frère laa bàyyi am na fi grand frère rek. non mais man xam naa ni champion ga daan ga ay champion moom tamit champion la daan na ay champion amateur yëpp nangu nañ loolu. mais tey li tax LP Events tëgg sa combat ak Ada maanaam du da ngay taxaw naan ay ab ah, lii dugg na fi dama bëgg nga wax ak sa adversaire mi ngi ni taxaw di la dégg dafa am lu mu la wax ci entrée bi wala. bay bala looy wax moom taxaw kay jarul wax jaratu fa gens yi loo mënti wax wax wax indiwuma fii damaa ñëw pour président de combat bi daanu yàlla suñu borom meen ndam si kawam. Ada Fass maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul Jawlax al Misbah Rafal Baay bala maa lay nuyu di la fay di la ziar. Mhm. dégg nga sa adversaire nee na wax indiw ko fi tey lan nga koy wax combat bi taxaw na combat jànk la amateur yi bëgg nañ ko lan ngay wax. waaw làmb la rek. <laughs> làmb la kon làmb yu ñu jugee rek ata ñun ren allah quoi dañoo pare rek dañoo doon waajal ay bër di daan kon boobu moom bu nekk suñ yoon dañ waaw ay ndeen rek waaw rek ñu lépp mbégte la kanam waaw dine di ko dalal ak jàmm waaw ko dalal ak xam nga combat bi nga jël xam nga ki nga jël bu baax xam nga li koy topp bu baax ñun luñ suñ bët fu mu fu mu teg ko mbokk weesu na weesu na jëmmam ji quoi. Hmm. waaw kon laa mu jaaxal ñu kon lu may waxaat ndax dañoo opté nekk mbër waaw te lu topp suñu ginnaaw macha allah Dakar ñoo Dakar moo ñu yaakaar. est ce que xam nga ni jàmm gën si Kap Mbaaw yëpp Fass Mbaaw ñu ngi ci ginnaaw Coly Faye numéro 2. seetaan nga ay combat seetaan nga digganteem ak Maguette Seck digganteem ak Ould Taya seetaan nga combat yooyu. man amul frontière. lan moo la jëlloo Coly sama mafia amul frontière. amul frontière. ñaabi maa ko moom. Mm-hmm. bu ñu jugee fii si ñaabi ñu tase ñun ñaabi boobu maa ko jàmm rek di ñaanal sama bopp jàmm bis ba loolu kese la. Mm-hmm. su bés ba la koy kon moom fi ñu jaar rek lay jaar rek. Mm-hmm. parce que sëñ Salim. xool nga Coly Faye bu baax ah ah. Hmm? na fi nee na fi ay say morom fi nu jaar fa la lay jaarale. xaaral la xalaatam la wax. nee ko. waaw non man kay du ma ko wax mi di la dégg. yow yaa laaj. waaw yow laay wax nee ko. yow la yónni. yow xam man nga yab nag. dafa bëgg xeex bay xeex ay commerçant ne dafa bëgg xex bay. bay xeex ay commerçant Colobane ku daa xeex commerçant yaa li damay war di xeex duñ fay dara. <laughs> nee na dëgg barke Serigne Bamba. nga ne romb. Colobane mi ngi yaa ko muy ragal day wax lu ko ah? neex commerçant mi ragal. Eh, seera fa xam ne maa ndàq raag. Hmm. wallaahi waxaa ci lax ji ma ci waxaatee déwén. waaye ba man laa ma ji si wax bu bëri. Hmm. ma ne loolu la indi. nga xam ne lépp fii la bujoo. Hmm. ñun chaque jour dañ koy seulement di koy yeewoo daf la romb ngay ngay ngay ngay xeex ak ay commerçant Colobane chaque jour dañ koy yeewoo di koy seulement di koy yeewoo di ko tëddee barki Serigne Saliou Mbacké baay bala man amul lu may ragal te bu balaa muy xam ne amul lu ragal baay ba ab gën suñu diggante. yow kii bu arbitre génnee seen diggante ñeme nga ko song nañ waxante dëgg waxal ak ñu lay seetaan. arbitre bu sifflé gën suñu diggante. waaye Ba la man du ma réglé si làmbu. Ah? wuy Lamine. te làmbu ji laajul waxu bëri quoi comme lu wax làmbu gaynde la. Mhm. barki Serigne Saliou. Mhm. man gor laa quoi damay dëggal sama bop du ma reculer. Mhm. moom na dëggal boppam bu mu reculer. moom dalay lay song bu bu la songee lan la fi fekk. waaw dañoo dañ ba jour bi li ma la wax xanaa yow. man wax indi ma fii. Hmm. lii du laam wax. Hmm. jëf moo des laam ji wax nañ ba mu taxaw kay. Hmm. wala demee nañ bàyyi ba jour si rek yàlla suñu borom. moo daan te ñëwal man wax waruma ko moo daan te ñëwal après ñu woo waa. ñu woo ñu LP Events. yaakaar naa ne am na solo Baye Balla maa lay béggee bu baax a baax di nuyu mbooloo bi di di nuyu mbooloo bu fi daje yëpp mu yaakaar ne làmb ji collaboration la LBP ak ki nga xam mooy Petit Production macha allah ñu taxawal tey li nga xamante bi nii mooy combat bi macha allah Petit Production ku ne xam ko ci làmb ñii aussi tamit ñu xam leen ci événement yaakaar naa ne combat bi taxawal tey lamin am na solo parce que Lamine yaakaar naa ñun ñu fi taxaw ñëpp man maa ci gën a nekkati làmboloog waaye Fass Fass ak Thiaroye yi ku ne xam nan ñoom ñaar niñ mas a dajee seen diggante yaakaar naa ne takkusaan yu bëree bëri am na ci seen biir waaye Ada Fass waa Fass la mujj magu magu Ada la daan moo tax mu nekk combat boo xamante ne nii combat revanche la te général ba tey nanguwul te CNG li fi am mooy que qualifié deux moo fa am victoire Père Bourkhane mi ngi ne taxaw mooy ménagère am. Mhm. yaakaar naa ne nag Baye Balla damay taxaw ci combat bi tuuti parce que Ada Fass xam nga maanaam gémmiñ moom bu waxul dëgg rek wax fen daan na ay ndaanaan mais est ce que ñim doon daan ak qualifié deux benn lañ. Mhm. adversaire boo xamante bi ni day xeex day bëre am doole. am supporter mhm. aussi tamit ma ñëw ci ki nga xamante ni mooy Coly Faye numéro 2 yàgg naa freiné ay booy mais est-ce que espoir yi mu doon freiné ak Ada Fass mi benn la parce que Ada Fass yaakaar naa ne Balla fi mu tolloon ci làmb 2005 Modou Lo toll ko fa 2005 ñoom Ama ñoom ñoom Boy Niang toll ko fa 2009 moom fa la toll làmb gi da koy doog dugg te moytul ma mbër boo xamante ne nii làmb gi da koy doog a fi may njëkkee nag yaakaar naa ne mooy ci Ada Ada Fass choix bi lan moo tax mu doon Coly Faye 2 doon na dégg sa yeneen moroom yoo xamante bi nii ñoo ngi lay ñoo ngi lay démarrer seen combat ak moom lan moo tax nga sawar jël Coly Faye 2 te am nga mbër boo xamante bi nii bokkut ak ñi nga doon amee am na lecture de combat comme yow mën naa xeex comme yow am na ginnaaw comme yow am na supporter comme yow choix bi lan moo tax mu nekk Coly Faye 2 waaw làmb la rek làmb ñu boole ndaxte doon nañu wax ay adversaires yu bëri. yu mhm. bëri. waaw mm. ah, ku ñu seede nga nga bañ quoi. Mm. <laughs> moom ñu seede ko mu nangu. Mm. waaw da ngay félicité si loolu rek. dinañ xam na gaynde <laughs> gaynde ku xam ne ne gaynde rek doo jaar yoonu gaynde. ku xam yoonu gaynde la. Mm-hmm. du jaar yoonu gaynde. ok Ada Fass gaynde la. mais est ce que ñi nga daan bëreel ak Colifay 2 benn lan moom xeex ko gënal kaa ñu lekk. ba ba arbitre bi ay wax day naaw mais jëf day. da nga daa wax jëf est ce la nga doon wax ak la nga doon jëf doo ci tegg centimètre. wax day naaw. jëf ah. day sampu. wax day naaw balaa ab xam na ne jëf la ah jëf la hmm. Dakar yëpp xam na ne jëf la waaw ah. bi suñu diggante est-ce que mën nañoo xaar nga wane sa bopp ci combat bii nii parce que da nga doon wax naan jox leen ma ponkali benn ponkala ngi nii taxaw Morane man damaa mën a bëre yow damaa mën a bëre damaa mën a foo macha allah hmm. te am fu ma teg sama bët ne moom grand frère la man xale laa damaa nekk si fi nga teg sa bët moo fi taxaw de firi bàcc sama yoon nga ne moo fi taxaw damay jàll dem tegal foofu sa baaraam mais balaa combat bi di taxaw digganteem ak Malaw Seras lañ njëkk dox ba mu jël avance bi lan moo tax mu delloo avance boobu jël Coly Faye numéro. man du ma delloo avance si làmb balaa mu doon gën a ñu tegal ma ko ay cinq avance nga xool du ma koy lekk mooy sama mooy sama lépp làmb laa am. Hmm. waaw làmb laa am xale laa. làmb laa yaakaar nga delloo avance man mosuma delloo avance doomu aadama. ma joxoon stade bi sama bëreeg moom man ragaluma dara. mais ki ngay bëre nii sa mag la mujjee fekk biir Fass daan ko général te ci yow ci ñi daa supporté général ak Tafa Gueye ñoom ci nga bokk. waaw amul man daanaka ñi ma bëreel yëpp dañoo bëri samay grand daan leen ma daan leen. tegal foofu sa baaraam Coly Faye tarkindaa bu ñuul bi maa ngi lay siyaar yaakaar naa ne ba ngay bëreeg jëf jël ba ngay bëreeg uldu taaya ba ngay bëreeg ndongolo ba ngay bëreeg daanaan yu mag yi loolu yaakaar naa ne yàggul suñu kanam la fii nga yàgg a wane sa bopp ci biir làmb tey nga am xale boo xamante bi nii bi mu duggee ci làmb yàggut rawantewu leen ay morom ngeen xëy na njëkk a bërente moo fi am mais adversaire yi nga doon bëreel ak Ada Fass est-ce benn la Coly. yëpp benn mënu ma dépassé ma mais adversaire bi adversaire bi nga am nga mujj faas te nee na moom da ngaa ci yoonam te yoonam maanam ku fa toll ku nekk da lay feree ne nga dëppaat te faas nga mujj te nee na moom mooy fayal suñu magam revanche. Mhm. ñu gis na dañ doon démarché sa combat bëri lan moo tax combat yooyu noonu taxawul nga jël booy bi nga xamante bi ni génération moo ci ëpp coow yow moom waxi noppi génération ñi ci bëgg a bëree yow bëri na soit bi lan moo tax mu nekk Ada Fass koo xamante day bëre di xeex andi mbooloo bu at bi sifflé du seqe tànk jëmale ko ginnaaw. sama benn combat lañ fi dox moom bëri ko tegoon. mu mhm. ngi nii taxaw laaj leen ko. Mhm. lu ko yàq ko laaj. Mhm, dinañ ko bi ngay bëreel du dellu ginnaw nee na bu at bi sa kaw la jëm musul arrière ci làmb. waaw ah, loolu loolu la concerné. maa ngi la ñor. waaw ah. li nekk si man. Mm-hmm. waaw jërëjëf. waa caaro yi topp sa ginnaaw ak mobilisation bi tarkindaa yëpp topp sa ginnaaw mën nañoo xaar nga def exploit bu rëy ci biir combat bii nii sa diggante ak aada. déggoo naa tourné sama ginnaaw seen caaro ak lamsaar rek. ñëpp dar la. naa tourné seen leen sama ginnaaw naa seen lamsaar gauche. Mm-hmm. seen caaro droite. Mm-hmm. ci innovation bi caay ji mooy ñëw ak ñaari place yu nu raw walla lépp loo xoolaat rek. soo dugal lépp. ayca bàyyi baax la kon dugalal promoteur bi. jërëjëf jërëjëf Modou Anta ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit mi ngi def liggéey bu am solo léegi nag mbokk yi bu ko defee ñu woo ki nga xamante ni moom mooy euh, Petit Production ndax combat bi ko production la diggante Petit Production ak ki nga xamante ni moom mooy LP Events Petit maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum ginnaaw loolu ginnaaw ma sant yow sant bu baax a baax. Mm. di nuyu presse bi tax parce que tamit dérangement métti na méttiwul quoi. Mm. di nuyu waa Petit Production ñëpp ak waa LPFN muy làmb ju ñu bëggoon. Mm. yàlla suñu dogal ñu doog a ànd si làmb di liggéey ci journée bi ñu di qualifié tamit ak Ada Fass ñuy rafetlu di nuyu seen ménager tamit Père Bourkhane Waat bu baax. ak Matar Ndiaye. parce que làmb ji bi ko bëggee bi ñu wax ak ñoom baat ak tontu la. bëgg nañ ay combat yu bëri mais yàlla bi taxaw muy lu gën si ñun gën si amateur gën si ñaari mbéy ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu si jàmm ak tawféex mhm. ak tawsiir. mën bëri si jàmm taxawal combat bi dañu njëkk a dégg ne Coly Faye numéro 2 ak Pape Ndoye taxaw na ba jour bi nga xamante ni da ngeen war a régulariser combat régulariser combat bi ñu dégg ci yeneen wax yu bokk ak yooyu. waaw loolu lépp ñun xam ay xel la ñu ngi si làmb di liggéey te peut être làmb boo nekkee liggéey tey la war bëri na soit nga am rek da ngay soit soit a bëri bëri loolu dañuy ñaan yàlla suñu borom mu nekk lu gën si ñun. Mm-hmm. bu ñu mën ko muur parce que lamb coow la lamb amateur ñun xam nañ bi ñu allah ñu bi ndax bis bu ñu fonk la. Mm-hmm. koy cof. la moo def choix bi Ada Fass Coly Faye numéro 2. waaw Ada Fass dafa xam na ne Ada Fass Ndakaaru mooy mbiru Ndakaaru la. Mm-hmm. Coly na ne bu jógee Caaroy yëmbal mbaaw jàmm gën ñëpp topp ko kon ñoom ñaar tamit war a bëri tey lamb mënu ko gën a neex lamb mën na ko gën a seet mais lamb mënu ko gën mm-hmm. te amateur tey duñu bëgg jox leen lamb jànq lamb coow lamb joo xam ne bu ñu te loolu amateur duñu moo tax ñu indi ko lamb bi mën nañ ci xaar combat spécial bu am solo waaw wax ak ay mbir yu ci war a bëri yu parce que lamb tey euh, buñ si duggee yàggul comprendre nga mm-hmm. mais ñu ku wéy di boo ñëwee le six mars stade Iba Mar Diop xam ne ñun duñu cuuni ba lës ba bés bi jot incha allah man ceeg wa LPFN ak waa Pire Production ci liggéey liggéey ngi lay nuyu. waaye baax baax la maa lay nuyu. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokku internet yëpp. ñëpp mhm. ñoo xamante ni ñuy suivre jàkkaarloo yeeg. ñu nuyu kilifa diine ak kilifa aada bi di wax ni LP Events ak mhm. production ñoo mhm. collaboré tëgg làmb bi qualifié numéro deux à la mhm. doon làmb boo xamante mun naa wax ni kora classico la daanaka ñu ko bëgg a bëri na trop dëgg yàlla làmb amateur la si sàkkuwaat ñëpp ay ñaan ñu defal ñu si tawféex di woo amateurs yi di woo képp koo xamante yaa ngi dund làmb rek mu ñëw teewee bés bi parce que euh, lamb bi lamb bu am solo la làmb bi daanaka ñu koy xaar bëri nañ trop mm-hmm. macha allah di gërëm tamit ñaari ménagères yëpp parce que yombal nañu liggéey bi euh, doon loo xamante lu jafe la daanaka petit wax na ko léegi-léegi nii bu mu waree taxaw ñëw na taxaw na si jàmm waaw di ñaan yàlla ñu tàmbale si si bisimilahi rahmaani rahim génne ko si alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. ma gaañ que le meilleur gagne euh, mën nañ xam bés boobu kan ngeen fi fas yéene àndal. waaw bés bi ñu ngi si àndal daanaka ñuy woo partenaire yëpp waaw ñu ñëw jàpp si làmb ji daanaka am na solo ay sponsors yi tamit parce que ku gis ñaari espoir yi nga xam ne tey jii boo si ñëwee wane sa produit doo ko rëccu mhm. parce que làmb la boo xamante population bi ñëppay génn macha allah parce que bu ñu nee aada Fass aada Ndakaaru fukk nekk ci ginnaawam. ne Colyfay 2 ne banlieue xam na ñëpp nekk dem ci ginnaawam kon mun naa ni loolu Sénégal kenn du des partout dans le monde ñëpp di ngeen ko suivre. comme nag wax ni ku si ñëw euh, doo ko rëccu daal. yi daanaka après di leen wax ñu ngi koy jaayee comprendre ne génne lépp loo xamante tey jii dina yomb si gaa yëpp nga xam ne stade bi ñëppay mun ñëw ñëppay ñëw seetaan xam na def ko fair play nag di wax non à violence parce que Sénégal mooy gagné culture Sénégal mooy xam na jeunesse Sénégal mooy gagné comme ñu si woo jeunesse bi ñëpp A ba Z si woo ñëpp képp koo xamante daanaka da ngay jàppale làmb rek nga ñëw taxaw si parce que ñun wa LP Events petit promoteur tey jii bu ñuy xewlee lii comprendre pour jàppale jeune lutteurs yi la moo tax ñu xewle lii daanaka si ay euh, social la ñuy dox ah si lépp comme tey jii ni ay xale ñoo organiser làmb ji ay xale ñoo koy bëre comme lépp xale moo koy def macha allah waaw di woo jeunesse bi yëpp pour ñëw dooleel ñu di gërëm presse ñëpp ñu fi ñëw parce que mhm. bàyyi nañu seen yitte bàyyi seen lépp te am na solo bu baax a baax parce que tey ji visibilité bu ñuy wane lépp ñun mënuñu leen fay ñun promoteurs yi daanaka ñoom ñu ngi siy jàpp si communication bi si lépp comme loolu am na solo bu baax a baax di leen jaajëfal di ñuy ñëpp di jaajëfal ñëpp di gërëm tamit ñaari mbër yi di wax ni seen contrat daanaka signé nañ ko ñu teg ko si yoon rek bëre ko si fair play xam ñu dëgg ko waaw loolu lan la ñuy wax incha allah en direct com ak Bantamba TV. loolu après dañ koy waxtaanee équipe bi équipe LP Events équipe euh, petit promoteur après ñooy toog waxtaanee ko du wax équipe LP Events ñëpp na ñëpp takk xam nga jug xam ne instant yii am na nañu lamb lamb boo xamante te tey jii nii lamb espoir la ñëpp ñëw. di ñuy grand Idi di wax ni dina jël euh, message bi envoyé ko équipe bi ñëpp Idi dina ko jaalale ñëpp si côté LP Events Idi dina jàllale message bi yëpp parce que tey jii li yëpp moom la macha allah jaajëf gërëm tamit Bakary DG LP merci beaucoup. Euh, jërëjëf mbokk yi kooku moom mooy LP Events ah léegi ñu bàyyi ñaari mbër yi rek ñu ñu woote. da nga bëgg a woote. petit. man lamb ji nag xamal ne tey PDG Omar Sow da ngay jàppale samay lamb. Hmm. bi may jógee Iba Mar Diop xaalis bëri la ma jox. Omar saw te lamb ji di ñëw ñu bëgg koo sargal la Yaxya Diop Yékini hmm. bu ko def drapeau Yaxya Jóob Yékini hmm. pédéjo moso waxuma ne boo tegee lam tudde ko dara Yaxya Jóob Yékini hmm. Yékini di roi des arènes boo xam ne def na loolu si lam hmm. te Ada mi champion la qualifié kon buñ ko sargale bés boobu war nañ ko sargal te duñ ko sargal incha allah ci bés boobu noonu kon nañ jàpp ci lañ war a sargal Yaxya Jóob Yékini maa ci woo ñëpp waa Touba waa Bambey waa ma dëkk maa ci woo Medina bi maa woo Sénégal gépp xamal ma maa woo képp ku jàppale Petit Production ak LPV ñoo ngi Eh, balaa balaa balaa ngeen di woote Ada Fass ak eh, ki nga xamante ne mooy Coly Faye numéro 2 gis ngeen suñu stade bi mooy suñu bison noor xool leen siège yi yàqu na gars yi commencé nañ ko defaraat CNG de lutte bi jël ci ay matu. woo gars yëpp si non à la violence. non à la violence ah, rek ak Sénégal benn bopp la kay mënu ko xar ñaar. Mhm. estar euh, bi suñu estar la bu hmm. nga yàqee suñu bopp leen ko yàqal di a nag yëpp ñëw si waaw fair play kon ñoom nuy noon supporter seen mbër xam nañ ne Ada Fass mooy loolu day touche mu neex bërëb bu neex daan ñu ñibbi hmm. chaque jour loolu laa andi woo di woo ñëpp Ndakaaru yëpp maa andi woo di woo Kajoor waaw Kajoor sama dëkk ngaay yëpp maa andi woo Fuuta ah, Waalo sama yaay di woo Casamance Gambie um tuddati Fatick Pout Baye Fall yëpp ma leen di woo si combat bi ñu si jàppoon yëpp sama samay combat ñu si jàpp bëri nañ maa ngi woo ñëpp waa diaspora bi waa Europe ñëpp képp kuy bëgg Ada Fass rek maa ngi lay woo si làmb ji ndax làmb dafa garaaw quoi gars yi xamuñ sax làmb làmb buñ tëgg barke Serigne Bamba mais moom xam na làmb ji man xam naa làmb ji. wala hmm. làmb ji nu mu garaawee. xam na làmb ji man xam naa làmb ji. Ah, lu tax nga xam ko. waaw gaynde la gaynde la. Hmm. waaw loolu man daf may neex. Hmm. moo tax làmb ji ma jël ko. barke Serigne Saliou ñaari bagarreur noonu la demee du may dara du ma may dara te man fu may dama koy jal dem sama yoon kon amateur yi mën nañ xaar lu ne ci combat ma may ma jël dem sama yoon hmm. noonu de tey dafa jël gardam li lii kenn ah ah message bi ah ñu dem ci message bi balaa ngay woote ah stade bi gis nga ni mu mel booy yu bëri yàq nañ siège le cas de Liss jaago rek tey war naa yee supporter yu bari parce que léeg-léeg ngay yaakaar ni da ngay defal sa mbër fekk da nga koy yàqal mi ngi nii léegi dañ ko aj gars yi ñu ngi dem di ko ñaanal njekk boobu ba léegi yàlla ngay wax supporter yi ak axlu làmb waaw man li may wax mooy supporter yi wax si ñoom man sama supporter li may wax mooy li ñu fi mujjee woon yàlla ñu mujjee war fi ñoom waaw may war a si non ala fi yàlla ñëpp ñu jàmm mooñ toog bëri nañu fi ba pare kenn si la kenn def ñu dara kon defuñu fi dara kon yàlla ñu fi mujjee waat allah mm-hmm. si kàttanu yàlla kan ngay woo ci combat bi waaw ah, may woo ñëpp di woo caaray lamsaar jàmm gën si mbaaw kër masaar faas mbaaw buun mm. di mbaaw